الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi le di leen ñaanal yàlla te di ko sàkku ci yéen di ñaan ci barke weer wi ak ngëneel yi làmboog yépp lépp lu ngëneel bu làmboo yàlla na borom bi subhanahu wa taala defal leen ko te defal ñu ko xanaa ngir ak fàttali rek dafa am ay devoir yoo xam ni ñoo war diggante jaam bi ak boromam subhanahu wa taala waaye it noonu la amee droit yoo xam ni moom moo war borom bi subhanahu wa ci digganteem ak jaamam jàngale nañu ni yonente yàlla Muhammad mas na benn saxaaba bu ñu wax Muaad ibnu Jabal ridwanullah alayhim jamian ñu ko yaa Muaaz dama lay laaj ñaari laaj te bëgg naa nga tontuma ci benn bi mooy ban devoir moo war jaam bi si digganteem ak boromam ñaareel bi mooy loolu bu ko jaam bi defee ban droit la am ci digganteem ak boromam mu ne ko yaa Muaaz maa xaqul ibaadi ala allah yaa Muaaz ni ko loolu de yàlla ak ab yonenteem ñoo ko xam mu ne ko devoir bi war jaam bi daal si digganteem ak boromam mooy mu topp ko xaqul ibaadi ala allah an yutiicuhu amma xaqullahi ala al ibaad droit bi nga xamee ni moom la jaam bi di am ci boromam gannaaw ba nga xamee ni def na lii devoiram mooy allah yuadibuhum ida hum abadu yàlla nee na sañuma sama jaam def lam ko sant ba pare ma seetaan ko ci li nga xamee ni mënalu ko boppam sama jaam du def li war sama digganteeg moom ba pare du ma def li ma war sama digganteeg moom te li ci njëkk mooy ku ne xam ne ni dund doomu aadama bi dafa laloo ak li tubaab yi di wax obstacle arab yi di ko tuddee fitna wala ñu koy tuddee iqaab wala ñu koy tuddee azab borom bi subhanahu wa taala nee na képp koo xam ni def nga lii devoir sama digganteeg yow am na droit yi ma war sama digganteeg yow mooy allaa yuadibuhum ida hum abaduh kon ñu ngi ñaax suñu bopp di leen ñaax di fàttali rek beneen xadis bu mel noonu bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale nee na yàlla dafa wax ko waxloo ni ko waxal say jaam yi ni leen ñett ngi nii képp ku ma ko wattul lépp luy droit bu ma war sama digganteeg yow dinaa ko matal mu ne talaathun man xafidahunna fa huwa lii xaqa ñett yi daal képp koo xam ni matal nga ko sama digganteeg yow lépp luy droit lu ma warloo sama digganteeg yow man borom bi subhaanahu wa taala dinaa ko matal mu ne waaye tamit képp koo xam ni sànq nga ñett yi tamit maa ngi leen di seedeel ni kooku sama noon la mooy wa man dayahunna fa huwa aduwi ñu laaj muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko ñetti yooyu ban ak ban la mu ne bi ci njëkk mooy julli bu ñaareel bi mooy woor weeru koor bu ñetteel bi mooy di sangu sangu janaaba borom bi nee na daal képp koo xam ne ñett yi yaa ngi koy def na ma la ko sante lépp lu ma warloo ak yow dinaa ko matal waaye ñett yi képp ku ko fonkul sama digganteek yow daal daanaka boo ma jàppewee wee noonu noonu laa la jàppee boo ma jàppewul noonu noonu laa la kon ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu gën ñoo xiirtel ci weer wile ba lim ci namm te mooy tuub am suñu diggante ak moom te mooy jegewoo am suñu diggante ak moom te mooy yéwénoo am suñu diggante ak moom yàlla na borom bi subhaanahu wa taala defal ñu ko defal leen ko xanaa rek di fàttali sunna bi nga xamee ni moo aju ci weeru koor bi di naafile di jour tey li fuqaha yu bari dëppoo ci juróomeelu guddi gi mooy faatixa benn yoon lay nekk ñeenti raka lay nekk raka bu nekk fatiha benn yoon alam nashrah ñetti yoon suuratul ixlaas muy qul huwallahu ahad ñetti yoon ñeenti raka boo xam ni ñaari sëlmal lay nekk raka bu nekk nag fatiha benn yoon ngay jàng alam nashrah ñetti yoon suuratul ixlaas ñetti yoon ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu defal leen tawfiq te nangu ñu suñu koor wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu